asalaamaaleykum laaj bu njëkk bi mu ne ndax sëriñ am na sëriñ am na sëriñ am na sëriñ am ndax euh, daf lay leer nag mënul ñàkk ndax lu mu ci doon rek lu mu ci doon rek la doo juddu xam ko wala nga mën ko te aajo woo ko la teqantal yonent bi sallallahu taala alayhi wa am na ñaari sëriñ kenn ki mooy Jibril alxuraan fa mu tàmbalee ba fi mu jeexee Seydina Jibril moo koy indil bu see gisee ci kaw suuf lu mu jaaxal lu ko jaaxal Seydina Jibril la koy laaj ba ba mu demee ba ëpp Jibril xam-xam mën koo jàngal fukki junne ak te Jibril du jeexal li yonente bi sallallahu alayhi xam waaye bi mu daataan àgg foofu ko daan jàngal bi ko di jàngal lépp it suñu borom wax na ko ci alxuraan ne ko wattabi millata Ibrahima hanifan te millata abikum Ibrahima huwa samaakum muslimin min qablu na nga topp yoonu Ibrahima di ko dogu wàcc lépp luy mbindeef jëm ci ki bind yoon woowu Ibrahima moo ci njëkkoon a jaar nekk xaniif xaniif mooy koo xam ne bàyyi na lépp lu dul yàlla jox dundam gépp yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam Ibrahima di maamam suñu borom ne ko toppal yoonu Ibrahima toppal yoonu diwkaay da tey kooku sëriñ la saxaaba yépp yonent bi salaa salaam mooy seen sëriñ liñ xam lépp moo leen ko xamal bi fi yonente bi sallallahu bi mu fi jógee saxaaba yi mboolem lu fi ñëw ci xam-xam ci saxaaba yi la jóge kon ñoo jàngal nit ñi ndax ci xaddis yi xaddis yi moo xamal lislaam ndax alquran mënuñu cee génnee suñu diine alquran daf nu naan jullil rek waaye duñu wax waxtu tisbaar kañ lay jot duñu wax ñaata rakkaa lañ koy julli duñu xamal ndax dañ ko war a biral wala dañ ko war a yelu moo nuy xamal noonu waxtu takkusaan moo nuy xamal koor bu ñëwee bu buñ ko defee yi yi ñu sib ak yi araam ci ku woor te du yàq koor ak yi yàq koor yépp ci xadis lañ ko jëlee ba fiq di daj lépp ci euh, ni nga ko jëlee ci yonente bi sa muy xadis te xam mënuñu koo xamee woon ci alquran ndax suñu borom dafa adresse ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim wàccee nañu ci yow alquran ngir nga biral nit ñi li ñu seen diine ngir xam ne kon nit ñi xamee seen diine ci alquran waaw kañ dina ñëw ci laaj bi kon naa ko jéggal léegi nga xam ne kon saxaaba yi ñoo jàngal ndax yonent bi salaam daf leen a jàngal zahir jàngal leen baatin nam leen jàngalee baatin Seydina Abu Hurayra dafa ne yonent bi salaam salaam bàyyi wunu fii dem fekk boroomam lu dul ba ma ñu ba mu formé ba nga xam ne kenn ku nekk ci ñun bu picc naawee sax nga jëlee ay xam-xam ci biir naawu picc moomu mu ne jëleel naa leen ci yonent bi ñaari mbuusi xam-xam yu fees benn bi yullil naa leen ko bi ci des bu ma ko yulli woon ngeen dagg sama baat ndax da ngeen di defe ne wuusi naa ak lislaam tey seen ñàkk xamay tax cheikh nag sëriñ moom nuru la ñàkk doomu aadama lépp lu muy def ba ba muy dem àjjana bu dul yonent fépp fu mu jaar nit a ko fay jaarale nit a koy njëkk a tàmbalee nil baa siin miin bu dul nit du xam alquran mukk te ko xamul alquran sa jaamu dana ñàkk julli gi ak koor gi ak jaamu yàlla yi ngay jaamu yàlla yëpp nit la koy xamal boo amee lu la lënt ci nit ngay dem mu xamal la ko boo amee loo xam ne kenn mënu koo def mbooloo nit ñi ci ngay dellu ñoo la koy defal boo fi jógee nit ñi ñoo lay sang sàngala ñoo lay julleen doomu aadama bu mënalul moroom ma dara jullee gi lu muy jëriñ ndax du julli jullee nit ku dee du dara lu dul ñaanal ko texe bu fekkoon ne amul njëriñ kenn du ko def bu amee njëriñ kon nit ki mën na jëriñ moroomam dara ndax nit ki mu jullee ñaanal ko suñu borom nangu ñaan gi mu texe texe gi gi mu am nit kee ko ko defal kon nit ki man na moroomam dara ñaan ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jëlee sallallahu alayhi moo gën a jege boromam ci mbindeef yi bi sidna Omar di dem di umra ji daf ne ko bu nu fàtte ci ci ñaan liiw kon sidna Omar bu mënul woon ñaan ñaanaale yonente bi kon yonent bi du ko ko sant sallallahu alayhi wa sallam bu nu dàqee ne nit mënu la jëriñ morom dara daan dàq ñaan te ko ne nu dàq ramu te ramu alquran indi na ko hadis indi na ko waaw gis naa nit ku ne ma waaw man ramu ni ma ko gisee mooy nga xamal nit ki li koy jëriñ ba mu def ko mu ne boo ko ko xamalee te defu ko kon ramu woo ko xanaa bu fekkee ba tey nit ki nga xamal ko eh, lii jëme ko ci yàlla mooy ramu bi kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sidna Jibril la ma na ko yéegi yéegi li ngay wax kenn mënu ko dégg li ngay wax waxi dëgg la bàyyi ko suñu borom bu mu bindee nit ñi bëgg ñu jëriñante xam ne ku ne mën naa jëriñ moromam la sàkk jur nit di jur nit bu ko neexoon mu sàkk nit ñu wàccee leen jëlee leen asamaan ñu wàcc ci suuf kenn du jëriñ sa morom dara kenn du dugal ak sa morom dara bu boobaa ku sa kër lakk yow da nga koy fay ku dee yow yaay suul sa bopp yaay sang sa bopp yaay def ku ne yaay jàngal sa bopp te loolu lépp dara du ci ki suñ borom bi mu sàkkee nit ñi ñu jurante jële ko ci benn bakkan rek muy aadama la nam ñu jëriñante booba la def njëriñal nit ci nit nit ay nitay nit ki li ko yàlla jox sax day jaare ci nit day jaare ci nit ne yow loolu suñu borom bañ na ko ba ne sama jaam bii de lu ma ko mën a defal mu sant ma féeg santul ki ma ko jaarale ci loxoom sant ma waay waay kon nan ko xam Euh, doomu aadama bi doomu aadama rek ni moromam moo koy àggale ci yàlla waaw saaba yi ko leen àggale ci yàlla ku dul yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo koy tax a xam yàlla moo koy tax a xam diineem moo koy xamal lépp bu fi jógee moo koy jullee moo koy ñaanal waaw néew bi ci bàmmeel yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi mel ne ku lat ci géej nga xam ne pexeem yépp jeex na du xalaat lu keneen ñëw suqali ko mu ne néew bi itam ñaan yi nga xam ne moom lañ koy ñaanal rek bu nit ki mënula jëriñ morom mi dara kon dindi nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne kon dee nañu gannaaw néeg moom ni aji lab ci géej gi noonu lañ pexem jeexe amatul pexe ku koy jëriñ ki koy ñaanal waaw kon nit mën na jëriñ moom gën a waajile ma ne ramm moom ak xadis ñépp ko indi alquran indi na ko xadis indi ko ramm am na bu fekkente ne dàq nañ ko daan dàq alquran dàq waxi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxi gaa yu baax ñépp itam daan ko ñi nga xam ne dañuy ramm nit ci ñaan ñu koy ramm ci nit ci déeyaaleeg suñu borom ba mu xamal leen ne leen nga nangam ak nangam may naa la nga ramm nangam may naa la nga ramm nangam sidna nañ ko lu sëñ Tuba ci raaya boobu wa fiihi qaala nabi Usmaanu yashfau fi saxiina alfan wa kullun xaqahu naar ci moom Ousmane la yonent bi wax ne Ousmane day dana ramm yowmal xiyaam juróom-ñaar fukki junni doomu aadama yoo xam ne ku ci nekk safara nga waroon a dem waaw bu nit mënalul morom ma dara kon yonent bi loolu mu wax ñu koy teg lu tegoon ci laaj bi kenn mënalul morom dara yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wala mu yowma isin lillah nit ñi bis penc ba dañuy dégg bis penc ba ñu naan juróom fukki junni at la ci yàggaay te duñ xam ne ay jaar jaaruwaay la ay tolluwaay la dafay am diggante boo xam ne lii suñu borom wax kenn mënalul kenn dara waaye diggante boobu dañ koy wees bis loolu ay jamono la ca bis ba ay waxtu la ca bis ba waaye bis yëpp ni yonente bi sallallahu alayhi bi ko sayyidatuna Aïcha di laaj ndax ñu baax ni daal di fàttaliku seen ñoñ ñi jariñ leen dara mu ne waaw waaye am na juróom béréb yoo xam ne kenn du fa tal kenn juróom béréb yooyu bokkul ak fa ñuy ramoo man de sama nof bii moo ma ko may maam Cheikh jóge na ca borom boutique boobu di jaay ay téere ñu daan ko wax kër Buxaari bi mu ñëwee naan naar bi jaay téere yi de laaj na ma laaj boo xam ne nee naa koy dafa naa xamul téere yi da koy jaay waaye xamuloo ci dara mu ne ma waaw gannaaw nit doomu aadama moom yomal am dootu tala ci kenn lu dul boppam kon yéen ñi nga xam ne mbooloo topp seen gannaaw te yéen lañu yaakaar na leen di xettale nee na ma ne ko tufuk kii nag ba a dem loolu moom sama sama bii moom a ko may ma ne yomal qiyaam ay jamono am yoo xam ne ni ki juróomi béréb yooyu kenn du kenn bu téere yi wadd xam ngeen ne jaam bu nekk am na téere bu nekk ci sa xol loo jëf mu marqué ca te nëbb nañ la ko ndax adduna ji nga nekk di dund dunduk suuf si muy dunduk lëndëm di dunduk ban maanaam matériel boo yemal xiyaamee ñu génne ko bind ko muy téere ñu saxal ko ci sa loos si wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yawma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansuura iqra kitaabaka kafaa bi nafsika alyawma alayka xasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi nit ki ñetti téere yi téere bu njëkk bi mu ngi mel ne film waxtu wuy génn àdduna lay jàngloo jëfam yépp ak pas-pasam yépp ba mu juddoo ba bu muy toll foofu roo gi di génn mu jàngloo lépp téere bi nga xam ne mu ngi ci xolam ñu bind ko ci c'est Ihya Ulumuddin li limaam alxasaali nga xam ne gis gis bi ngay gis adduna di ko dégg moo tax doo ko gis ak wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu yawmal qiyaam téere bi nga xam ne lépp loo def te muy lu baax day leer nañ ñi gën a leer jant bi lépp loo def te muy lu bon day ñu gën a lëndëm lu nekk bis booba taxawaay bi nga bis nga xam ne téere yaa ngi wadd te képp koo xam ne sa téere mu ngi wadd ci sa ndeyjoor wala ci sa kanam nga fab kook sa loxo ndeyjoor aji texe nga képp koo xam ne sa téere mu ngi wadd ci sa gannaaw ñu képp sa loxo càmmoñ bi mu soqi ko ñu saxal ko ci sa gannaaw nga jàpp téere ba ak sa loxo càmmoñ boobu aji texe di nga boobu téere yi commencé wadd nag koo xam ne kii sa téere waddagul taluloo dara ci àdduna talatoo dara ndax suñu borom da ngay fàttaliku xam ne du ko soob def te xeebul dara yéemul dara te amul benn mbindeef moo xam ne mën ngaa waat ci naagu ne man mi aji texe laa yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bis benn xaleel faatu bi yaayam di jooy am ñu naan ko wala yaay sax moo ko doon wax ne du ma ko jooy ndax xam naa ne moom wallax jaanu àjjana rek la mu ne ko ku la ko wax ana ku la ko wax man di giñ naa ne man la sama borom tànn yónni ma ci jaam ñi waaye xaw ma fu ma jëmee ëllëg loolu mooy ragal gu mat fikk ak delloo mbir yépp nga delloo ko suñu borom bul nangoo xam dara ci mbiram bul nangoo am dara bul nangoo mën dara lu dul lam la mënal lam la won ak lam la xamal bërëb boobu kenn du tal bi ñu peese jëf yi kenn du tal bërëb yooyu rek ay jamono la yoo xam ne ci tàmbali bi ci yomal xiyaam dafa am jaar-jaar yoo xam ne li ñuy wax naan bu keroogee ku seen sa soxna daw ku seen sa borom kër daw ku seen sa yaay ku seen sa baay ku seen sa doom ku seen daw kenn mënalul kenn dara ay jamono la ca du jamono yépp de ay jamono la ca buñ ko weesoo weesu nañ ko yi ci des yépp nag xew ndax wujuhun yawma'idhin naadiratun ila rabbiha naadiratun ila rabbiha naadiratun loolu suñu borom a ko wax ay xar yoo xam ne bu keroogee dañuy jàlloog seen borom xar kanam yu nitax yu bëgg yu leer nañ kooka wane na ne bis penc ba du rekk xew-xew yooyu ñuy wax ci benn jamono boobu rekk la bis ba juróom fukki junni at la xew-xew yu bari cay xew yii nag ay jaar-jaar rek ay tolluwaay la rek yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillahi ba ci àdduna bi sax loolu adduna bi kenn mënalul sa morom dara lu am dogal baa yàlla lay soog nga def ko loolu tekkiwul ne am na ñu texe ak ñu texewul laaj bi loolu loolu la woon mbirum lan